asalaamaaleykum wa rahmatullah waa réew mi waa bitim réew sëñ Ibrahima Fall imam moom leen di nuyu di nag damaa internet bi gis ni Mamadou Ndoye Bane moo plainte Cheikh Talif ñu war a wuy ji ci yoon waaye daal li ma ci wax te man koo seede ci ñaari jëm yooyu muy Cheikh Talif ak Ndoye Bane ndoyu baan nag moom xam naa ko xam naa la bu baax boo xoolee xar kanam nga ngay xam ne man xam naa la ñëw naa sa ngénte sëñ Bass Abdou Khadre mu ndaw yal yàlla guddal fanam ñëw naa sa ngénte ajaa diggéen si meer kon xam nga ne xam naa la waaw li ma lay conseillé rek mooy ndoyu baan mooy nga yam nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax waaw Cheikh Taalif li ma lay seede ci yow wa maa shahidnaa may seede ci mooy wax dëgg yàlla nit ku baax ku koo xam ni ci liñ ko xamee mooy liggéey jaamu yàlla ndax émission boobu doonte benn yoon la sax jaar naa ko te lu loolu xam naa ko bu yàgg ñuy waxtaan di déggante téléphone nit ku baax la nit ku yaru la nit koo xam ne du dugg ci lu yoonam nekkul moom Cheikh Talif loolu moom xam naa ko ci moom waaye di wax nag di la wax Cheikh ñu sa ginnaaw insha allahu rabbi jàmm rekk ci mujj jàmm ci ñëkk jàmm ci mujj insha allahu rabbi waaw ñu ngi sa ginnaaw di la ñaanal sunu sunu ngànnaay lan mooy ñaar kon jàmm ci njëkk jàmm ci mujj waaw ndoy baan nag li ma koy wax mooy ah, lu mel nii boo ëllëgee bu mu ci duggati waaw loolu dama ko koy conseillé xam na ma man xam naa ko waaw ñëw naa ngénte sëñ Bass Abdou mu ndaw ñëw naa fa ñëw naa ajaa diggéen semaine mu ndaw ngénte ngénteel ñëw naa fa waaw koy conseillé mooy mu xam fi muy bu baax a baax a baax loolu sama conseil la ci moom waaw bu ko defee nag di wax ni sama mbokk sëriñ sëpp nañu génn ñu def vidéo ñu wax ci lu mel nii bañ xam ne Cheikh Taalif kat am na ginnaaw incha allahu rabbi jàmm ci mujj ndax ku am kudd dool ak waaw ñu ngi sa ginnaaw di la ñaanal incha allahu rabbi ca kaw ca kanam waaw xam kenn xamula ci lenn lu dul lëggéey jaamu yàlla kenn xamula ci lenn lu dul lëggéey jaamu yàlla kon incha allahu rabbi Cheikh bul tiit bu ragal waaw yàlla rekk fi nekk bul tiit bu ragal incha allah rabbi dana baax ca kaw ca kanam rek waaw amul lenn lu lay fakastal wala lu lay gàllankoor incha allahu rabbi yaa ngeen jëfati Cheikh Ibrahima Fall imam la woon wa shukran fi amanillah